ndax man day doon gi doon taale bi sëñ bi di ñu dajale di ñu déggale di ñu jubóole man loolu rek sama liggéey ndax loolay li neex sëriñ bi te loolu yi mooy li ko noppal tey waxuma sax moom moo waaye loolu mooy li ñu noppal ñu taal bi loolu mooy moo tax néew ma néew fi de waaye soññe daa mënta ñàkk ngir ñu gën a góorgóorlu mu ngi fi de loolu jógu fi yaa ngi ni waaye ñu ngi demante ñu ngi dikkalante waaye na gën a maas na gën a rafet ndax moom day sëñ béy ñun am lu dul moom waaye mu am lu dul yaa ngi te li may wax maa ngi gën ma leen koo xam sëñ béy amul lu dul taalibe yi te ñun taalibe yi am lu dul sëñ béy kon lépp képp koo xamante ni yaa ngi fexe diggante taalibe yi ak sëriñ bi gën a rafet bilaay sëñ béy dina sant gën a mbooloo bii ko Serigne Saliou dox nga xamante ne am na si ñoo na si ñoo xamante ni ci biir mbooloo bi ba ñuy ànd boobu ay magum jëmm la léegi nag ñu boole Serigne ay magum jëmm la am na si ñoo xam ne ci biir mbooloo bi ba léegi Serigne Saliou ñu boole Serigne boobu ci biiru ñuy seen biiru may wax xam ngeen ko. da ngeen gis kuy ñëwaan di jébbalu toll diggante ko di ne la jébb na ko jébbal naa la sama bopp jébbal naa la li ma yor am na ki ñoo xamante ne ay gone yu tuut lañ jébbalu ci sëriñ bi boobu xamuñu sax muy jébbal man ba ma jébbalu ci ma fukki at ak laa boobu xamuñu sax muy jébbal te am na ci ñoo xamante ne ñoo ma gën a maanaam néew at yi jébbalu ci sëriñ waaw mbooloo mii ko sëriñ Saliou wax ñawoon yëf yi ak ñi ñëwagul képp koo xamante ne yaa ngi dox sa tànk ci yëf yi gën a rafet daal di nga am njëriñ sëriñ bi waaye képp koo xam ne yaa ngi def lu mbooloo bi ak sëriñ yaa ngi def lu ko ci te loolu day man de yéene wu ko kenn moo tax nañ dëppale xol yi ànd doon benn ku ne nga nekk nekk fa na saf saf bu la fa kenn mën te ku nangu kenn mën waaye nag. lii mbooloom Serigne Béthio mii waaye gars yi na lépp rafet na lépp rafet maa ngi leen ciy soññaat bu baax di wax ni gisal ak yu biir dëgg xam ni mënuñoo wax ba daaneel duñu daaneel mukk bésub Serigne Béthio biir dëgg nga xam ne suñu yëngu yi lépp moo ko waral fi tool yi kenn nelawatuñu bëgg dee ba damaa dem suñu doom nuuru daara yi ñu ne ma ñoom nelawatul ñoom fi mu toll nelawatul dañoo stressé di sax di fekk sax si matul ñu nelaw man leen ndagam jogoyee dee gën bàjjo te xanaa bu ngeen nelawee ba yaan door man si lay doog a nelaw waaw nga xam ne bisub sëriñ bi bii fi mu toll nii képp kuy cantaakoon yitteel nga la xeetu yitte boo xamante ni ku ci nekk yaa ngi xool fay ba fooy fooy sa bopp ngir bëgg bëgg seen mbéy waaye gars yi bi suñu bisa bés bi bés bi moo waral lii tey tey jii suñu jàmm ji ñu nekk suñu bëgg nii ren bi suñuy nag bernde di tëgg ak a fecc di Bisir Abdoulaye te bu ma laa Bisir Abdoulaye borom Bisir Abdoulaye ki ki ki sàkk Bisir Abdoulaye ki sàkk daje bi ndax bu ko neexoon bu ko neexoon mu ne ci jamono mu ne ci àdduna di lëmbee di def li muy def te du jarul ñu daje daje bi bu amee ñun moo tax bu daje waaw sooy wax màggalu Sëriñ Tuubaa bi ñun bu ci jotee. borom bés bee ñu ko may borom bés ak avril ko may. bu dul woon daje ba ñun duñ est ce que kon dinañ doon nit te dama man dinaa doon nit waaw tax ma koy wax saa su ne gaa ngi ne bii rek ma doon janax mën a yàq waaw daa ma doon delloo du ma seetlu ma xam waaye nit. muy woote wow bàyyiwul kenn képp koo xam ne mbégum Serigne Touba sa mbég la rek war ngaa jëf ci màggalu jox ñu leen ko de waaw nag ba tey Serigne Touba woote ñu ci màggal ñëpp maasé wuñ ko dégg waaye ñun jantaa ko bu ñu ko déggee nii ñu ko déggee Serigne Béthio ñu ko may te bu ma nee Serigne Béthio mooy la yama mooy borom daje ñun bu ñu amee taw féexu jëf ci màggalu Serigne Touba bi buñ jógee naan suñu nag di tiitaroo ko ndam Serigne Béthio ñu ko may bu ñu amee taw féexu jëf ku jëf ndax gën gi bindee sëñ Béthio bi ko may ndax kat euh, sëriñ Saliou moo ko ne jox naa leen digal del gaaw waaw bu ñu amee tawfeex ak sëriñ Saliou ne sëñ Béthio ne Saliou bii nañu fonk xasaay bi sëñ Béthio ne maa ngi teg ci sa am dama ne gaañ ka woote woon màggal gi ki woote màggal gi hmm. woote gàmmu gi woote xasaay woote 17 avril duñu ay juum leen na képp la duñu ay juum de déedéet xoolal ñun ñun ñun dañoo gindi ñun dañoo gindi ñun dañoo gindi barki Sëriñ Tuubaa fii dox newu tey waxi sëriñ Saliou yi dimbali nañu na ba mënuñoo dégg lépp waaye dégg na ci nag kon maa ngi maa ngi soñ ñëwaat di ñu xam ni ay taalibe lañu sëñ Béthio kat jàngal nañu diggante ma sëriñ Saliou lépp jàngale la yaay man maay yow la ko wax lenn képp la waaye diggante ma moom jàngale la moo tax mu indi jalaala jamaal jamaala jaamu jalaal ba leer soxla ko suñuy leer nuur Muhammad leer boobee kat ci la ñu sàkkee ñu liggéey ak lu am adduna lu xew lu am te ñu xam nañ ne kat wax dëgg yàlla jalaal ak jamaal waaye jaay ñu nag romb sëriñ la def sëriñ Saal te leer bi jógu fi jógu mu waaw ci mujj ci yonent yi mooy tey bu ñu dee taxul kat gërëm yàlla jóg dafa mujj ci yonent yi ay yonent jaar nañ waaye moom moo mujj ci yonent yi mooy le sceau des prophètes waaye teewul kat taxul gërëm yàlla jeex ndax Sëriñ Tuubaa kat ba muy liggéey moom xam naa loolu ñoom université Sëriñ Saar Samb ñoom université ñoom ñoo koy gën a mën a leeral waaye dige ba dige ba mooy Serigne Touba moo diggee woon ak moom ca yeggee maay jël lay yàlla maanaam lay leer ga tàbbal ko ci mbubum nit man yàlla maay cëppeelu nekk ci mbubum doomu aadama maay woote ku ma wuyu si tàbbi ajam Serigne Touba ba mu diggee dafa yeesal sunnas Muhammad sunnas Muhammad mooy lan l'islam Touba yeesa kon moo moom yoon yi xam na yoonu mooy nga fàtte bi Serigne Béthio fa jaar daal di xam tàmbalee xaat tëdd say climatiseur tàmbalee xaat dawal sa oto tàmbalee xaat mbamee yi nii poos tàmbalee fees dara non man ay affaire dem daara ay faaw ay dukkatol fekk waaw di fecc laa wax. waaw ah, waaw. yaa ngi dee dukkat. Ah, eh, dee leen dukkat ba ni saa yi. Ah, dama ne yàlla bu la defalee da nga koy xam. ñun dañ ñoo defal. barki Serigne Touba. Eh. ñuy dukkat ba ni saa yi. man damaa mënut a concevoir ak jota ko ñu wër Serigne Saliou Serigne Béthio. nga toog ne dem mel ni ku yëgul ci yàlla dara. barki Serigne Touba. bale saay dugal bale saay dugal bale saay dugal bale saay dugal bale saay dugal bale saay dugal bale saay dugal bale saay daañu ne sas yi mag sas yi si dafa war a mat mat ba weesu la ñuy wax waaye mat gi moom nit loo sasu loolu ñuy wax cent sa cent daa war a mat boo paree nga tàbbi nag ci weesu sas ndax bés bi kat jar na lu góor naa so ci so soññee nag daa mënta ñaar xam naa ne bu ci nekk sa xol mu ngi nux nuxi nooy fexee ba matal saw sa suñu seen am waaye soññe bu gaaw baa ngi bu sa noos ci ndax loolu noos daje bi daa mënta ñàkk soññe bi daa mënta ñàkk ndax kat mooy suñu taw fii ngir ñëpp nekkaat ci yëf yi xam ne ah moom di seen abri bi moom di yoon moom amul salaam ba sa selaw waaye bii di seen am lii waay takk weesu na ko da ngay dem ba yegg sa rek xam ni réer nga daal di ni na ko jàppee woon ak fi mu teg moo tax gars yi man waxuma ay aj baar ak yooyu ne réeral baax waaw baax bi daa war a réer ku ne di ko jéem te doo ko gis mooy da ngay tàll di jëm rek waaw aj ko foofu rek bu da nga làmbaatu fa doo ko daj lu nga jox nañ ak foofu lañ toll kon maa ngi leen ci sol ñaan bu baax maa ngi bëgg lool ci mbooleem zone yi nga xam ne kat ak mbokku taalib yi nga xam tàgg nañu ci jëf jii nga xamante ni mooy jant jii ñu woote sant sëriñ taalib te loolu ko def ñoo war ndax sëñ Béthio kat xam ngeen ne jàngal nañ ne sant sëriñ taalib mooy diine te ñun ñii di ay taalibeem dafa dem ba defal ñu dawaa ko sukkandiku ñun bu ñu nelaw sax ngi sax waaye nag bu tee nag ñu rey bi di benn sam sëñ ndax mooy suñu bi kon gaañ yi nañu yeesalaat doxin bi yeesal pas-pas bi yëngalaat daara yi soñ ñu mbooloo bi jëli leen ñu bëri ñu ngi toog amaana dañoo ñëg rek waaw waaye sëriñ bi saa su ne wax ko moom xam na li ñu nangoo jébbal waaye Serigne Saliou waxu ko lu ñuy delloo jébbal moom xamu ko te da ngay gis ñu bari ndeysaan ci gaañ xam nga su ne ma dajeel du la mel da ngay gis ku ñëw ne la man kat damaa toogoon waaye ñëwaat naa te dañoo xam ni waaye fii gaañ fii ko neex dafa Serigne Touba gën a neex nag fii dafa neex nag fii jàmm daf fay am salaam daf fay am da ngay liggéeyal Serigne Touba da ngay am maanaam loolu yi ñuy wax maanaam xaw ma nu ñu koy waxee waaye da ngay da ngay daal di am waaw péedal laam da ngay am jàmm da ngay leer ni adduna bii nga ne fenaan nga àllaaxira ga nga jëm moom waxaale wuñu ko waaw da ngay am sécurité da ngay nekk en sécurité ànd ak Serigne Béthio mooy sécurité ndax li nit ñi xalaat di dëkkee di ko xalaat mu leen tërëmati nga yow fekku la nga ndax yow foo toll yaa ngi bëgg tey bëgg de foo toll yaa ngi ne ci jàmb ji yaa ngi sant sa xol a ngi neex waaw kii gars yi kii bi mooy sëñ Bello kon nañ leen gën a góorgóorlu gën a yeesalaat pas-pas bi te gars yi bañ di xaar si ñu di woo ay naan ba sàngam sa yaar am na bara sàngam gars yi xam nañ ko ba suñu xasee ba ñëw àjjuma bu jot siyaar la samedi bu jot siyaar la moom bés bu ne siyaar la moom heure boo ñëwee takk mu toog. làqatuwul moom nëbbuwul làqatuwul sëriñ Saaliw woo ko def muy yër na di jari jariñ te moom ku ñëw mu jariñ hmm. day fekkee sax di jariñ waaw tey jii mu nga Bordeaux tey du ma yóbbu Bordeaux tàmpe Bordeaux waa Chine ak waa Japon ak waa États-Unis ak waa Canada ak waa France ñëpp di ko fa fekk mu leen di jariñ amee noonu la demee noonu la demee ñuy jaay yi dañuy buur di ko wuti dañuy dañuy dañuy dañuy xëcce woo jëriñ bi mu doon day yër na doyu ko dara te sëriñ Saali woo ko jox li ma war a manqué suñu xéewal nañ leen di jëriñoo jëriñ bi mu doon te ba nga toog suñu kër rek yoon pour ay jiitu ci jàpp ne yëf yi mag dëgg day suñu njëriñ ñu soññewaat gaa ñi bokk taalibe yi jëriñ yëngu laa leen daara yeesal gi la wax kat moom mi yeesal xam ne yëf yi ràpp kon nañu nañu nañu am nag maanaam yitte yi bañ a sonn bañ a tay foofu ñu sonn ah sonn ji mënu cee ñàkk foofu ñu yëngalaat daara yi jëli mbooloo ma ndax kat bu mën a jëli mbooloo bi mooy yërmande waaw kon waaye cofeel maa ngi zone yi nga xam ne nee na muy zone Maris Pikine waaw muy zone dem jeex jëm personne moo liggéey muy zone Parcelles Guédiawaye ñu koy wax Chine xam naa loolu foog ñu koy leeral ndax Chine sax mu ngi fii Daaru mooy Chine fële waaye fii ci bi ñuy wax fii Parcelles Guédiawaye la mooy daara yi nga xamante ne ñoo nekk bi Daaru Salaam nekk Parcelles Guédiawaye xam nga foofu dañ naan Chine populaire la moo tax gars yi tuddee leen leen mbalak tuddee a Chine waaw ah, zone waaw zone boobu ñoom ñoom seen nag ñëw na boobu taalibe yi ñëpp ci daal ñëpp ci jëm waa Jofeel am ngeen ndam waaye bi gërëm si bi ci dëkkal ma jógee kër gu mag Mermoz ba ma jógee Nord Foire Sacré-Cœur gii la ma dëkkaloon ku ne fàttaliku na ci terrain de football bi 2004 cant gi ma fi woote woon boobu Abdoulaye Ndiaye jàmbaar bi ak yéen ñi yéen a mool yéen a yéen a dina dañ koy luyee fii ndax kër gi daa ngeen jëlee ma non soit indi ko fii Sacré-Cœur liggéey ma R plus 1 man ak sama benn doom rek maanaam ba xam ma ne sëñ Béthio fay bi métti na te man jokkale ak borom Daaru Salaam boobu borom Daaru Salaam laa yor boobu ñun ñaar rek ne ci kër gi ma ne ko fii dafa dafa rëy ci man dañ ma wutal fu yem boobu bi ma defee cant ji fii ba pare ci ci lañ ci jigéen ma wutal Ouest Foire gii. yéen ñii yéen doon faykat yi pendant sept ans ba sëñ Béthio bi muy bi muy jënd kër Sicap bii muy kër gii ma dëkk tey jënd ko ba noppi dajaat kër gi defaraat ko lépp yéen ngi fay Ouest Foire bii mu cher lool ngeen di fay kër gi village bi te kër gi li mu bindoo mooy immeuble la hmm. waaye man sama kër man dong la woon immeuble bi buntu bi nee na nekkee ñoom ñoo nekk nii man sama kër gi nii man dong sama kër ne di fay di fay ndox di fay luwaay pendant sept ans mosu leen na um ba 2008 la ma sëriñ ba ci jëlee foofu andi ma fii ci Sicap Foire fekk sama kër boobaa ak léegi ñu Touba ak Soxna Coumba laa gën a ko lool moo tax bu ma bu ma kenn yërëm gars yi bu naa ñaaw aw ma lu ma Serigne ma fekkoon may may fàccali bët du ma lekk du ma naan du ma talam ak yow bay wër daara yi sama Serigne Touba ma ko defalee ko de. ma koy topp ba mu waaye nii mu ma ko defalee sant naa sant naa ko bu wér yëgaat naa ci sama bopp loo xam ne yëguma ko tollu naa yëg naa ni ndekete man sama xol bi ku dul sëriñ Béthio newul ndekete li ma yàgg di wax ay doom sëriñ Touba ay alal ak ndekete sama ca sama xol bi maa dem ba yëg ni sama xol bi sëñ Béthio rek a ci ne barki sëñ Touba mooy gars yi dama ne lii ñu dem ci or sa wiis dama ko ba ñu dégg waaw waaye nag santaakoon la santaakoon la maa ngi sant bu wér sëñ bi ñu leen ko seere di leen wax ni dara métti bu ci kenn ndax ñii ndeysaan dañuy woote ñii di yónnee message dañuy bëgg di woote waaye dañuy am kersa ñi duñu xam ni ñu koy waxee di ma ñeewante bu ma kenn ñeewante maa ngi sant sëriñ bi maa ngi sant bu wér message la bu may lancé ngir ñu xam ni yëngaluma tol tarkatal ay barki sëriñ Touba li ma sëriñ day ko defal tokk lii tokk la ci tokk kon man lay fi def di santaat bu baax bég cofeel waaw am ngeen ndam waaw ndam bi gis nga ah lii kat ndam la nag gars yi ah waaw maa ngi bég seen xéwal yi bari na am na ngeen ko gën a mën léegi maa ngi ñaan ci barke Serigne Béthio Serigne Béthio sotti ñu xéwal ubbil ñu buntu dafa ñu taw féex yi ba yéene gi ñu am suñu xol yi tawfeex gi ñu am ci moom yéene gi ñu am ci liggéeyal ko mu dimbale ñu ba defee ko foo xasul ba te mu ànd ak mbégam ak i gërëm ànd ko mucc ak yokk ci saayal ci baax barki sëriñ Bay ànd bi rafet na ñu lay sell ànd bi rafet na waaw bëgg naa loolu loolu kat ñun ñëpp seere ànd bi moom ànd bi rafet ànd naag taalibe ànd naag nangoo liggéey barki Touba am naa def yitte Serigne Beck am naa jëf te am naa pas-pas ak pas-pas waaw maa ngi bëgg loolu seen xol yu rëy yii waaw barki Serigne Touba sant naa Serigne Beck bu wér moom mbooloo mi jëwriñ yi universel yi maa ngi bëgg ñëpp waaw gars yi fële lañ jógee gis naa fi waa Tamba waaw waa Kaolack gars yi fële lañ jógee dikk waa Linguère waa Louga waa Thiès waa Ndar waa Bakki Serigne Touba waa Madinatu Salaam waa Mbour waaw ñoom dëkk dëkkaat yi fu ne la waay jógee Bakki Serigne Touba ba seew gaa yi ñëpp ñëw jëwriñ ñi mbooloo mi sant naa bu wér ku ma lima ku ma limul ñëpp gis naa ñëpp ñëpp ci waaw maa ngi ñaan sëñ bi gën ñoo gën ñoo taxaw te gën ñoo suñu taal bi gën ñu koo sàmmal ñagal ñu ko yokk suñu bëgg ak suñu cofeel gën ñoo dimbali dañu sax faw di ko liggéeyal ci barke sëñ bi gën naa loolu kon ñu may ko suñu saa sàmbu waxtaan sëriñ bi